salaamaaleykum gars yi képp ku kontaan ci Ousmane Sonko de la musique sénégalaise rek ah defal ni sa loxo ci kaw mayel ma ko ay kër king of the ñëw na biir Almadi man bu ma gisee nit ñi naan way yaay xool leen waali nit ñi nu baree Almadi woo pëp pëp pëp baali jàmm la laay laaxa illa laa dama koy xool damay ree waali dépassé na yooyu waali amul lu muy prouver biir Sénégal kii saal yu mag yépp tëgg na ko feesal ko dell toj na Grand Théâtre toj na Zénith toj na Bercy toj na Dulbul Man toj na teeru bi waali xar na fépp saal yu gën a ci biir Europe saal yu rëy yi biir Sénégal yépp wàllu géné amul lu muy pourfe ci Sénégal amul ñaanal leen ko rek yàlla may ko gudd fan ak wér gis nga ba nga ñëwee bi dafa neex ba nga ñëwee albuné bi dafa gaaw waali ba nga ñëwaatee dina xam ne yaay borom almadi almadi damoon na la waali almadi wetoon na mbedd yi wetoon nan almadi daf la namoon quoi maanaam Sénégal ñoo la namu mais nag démb leer maa li may sax yaram bi dese naa tàng tey incha allahu rabbi tey ca bokk ku tardé bisu tey bii parce que tey la waari dana génne lu rëy waali mooy Ousmane Sonko ci Sénégal ci politique bii Wally mooy Ousmane Sonko de la musique sénégalaise comme Sonko biir Sénégal rek boo ko nangulul da ngay sonn da ngay néewi di rees rek di néewi di rees di néewi di rees di néewi di rees di néewi di rees nangul leen koli ko yàlla may kii du nit yàlla la yàlla may jàmm may la gudd fan ak wér waaw man nag sama cadeau dinaa ko indi incha allah rabbi naa ko jaarale ci monsieur le ministre ah Omaro yónnee ko mu ñëwal moom foofu wala Baye Zane incha allahu rabbi bu soobee yàlla jërëjëf Wally Ballago amal jàmm mes respect mes frères jëfati jëfati jëfati jëfati